waaw mën naa ni classe yi dafa ñëw heure bi mu war a ñëwee parce que boo gisee sax ñu ñëw fii ñun fële lañ nekkoon école bi ci wetu tali bi la nekkoon mais problème poussière yeeg environnement bi c'était pas tellement les meilleurs raison pour la laquelle les enseignants yi si boppam ñoo décidé ñëw ñu délocaliser fii fekk fi ay abri provisoire parce que bi ñu ñëw ñetti abri provisoire moo fi nekkoon si biir classe yooyu lañ doon jàngalee. loolu bi Maam Jaara ñëwee gis situation bi gis ni ay abri provisoire vraiment ak si bi ñu nekk ni moom moo poussé mu àndal ñu construction de salle de classe yi ak rafetal ñu beneen trois salles de classe tey actuellement ñoo ngi si suñu huitième salle de classe te loolu lépp si solidarité active bu Maam Jaara bi moom moo andi lii tey ji bon jafe-jafe yi mooy école bi amul courant am nañ ndox mais ndox bi pratiquement buy ñëw. day fekk élèves yi wàcc parce que ndox bi boo ko war a soxla heure bi nga jàng ko war a soxla mais ndox bi bi muy ñëw période boobu presque élèves yi wàcc nañu parce que situation géographique école bi la dafa nekk si montagne ndox bi presque heure mu ñëw ay heure creuse lay doon la dañuy obligé donc mois j'habite tout près de l'école damay ñëw di citerne bi fi nekk les seaux ñu remplir ko pour mën a am ndox mais sinon bu lool difficulté majeure la si école bi bon njàng mi bon dans euh, am na benn côté boo xam moom dina fi sooxe parce que dañoo nekk si milieu boo xam ni mooy milieu boo xam dafa am usine muy usine ICS bi parce que booy xool jigéen ñoo ñoo ñoo ëpp lu ñuy résultat yi fii boo koy xool muy si CM bi comme muy si primaire bi pourquoi parce que jigéen ñi du ñu dem usine ba di liggéey mais góor ñi fii aussitôt dañuy bëgg a dem fële pour gagner de l'argent dem si usine ba di journal yow pour gagner dara loolu nag seen mag yi def ñuy gis xaalis boobu moo leen di pousser ba presque dañuy décourager si école bi boo xoolee daal pratiquement fii jigéen ñi boo xoolee léegi bi ñu def distribution bi sax presque prix yëpp jigéen ñoo ko remporté euh, waaw. kon daanaka booy xool lu sooxe la man en tant que enseignant mën naa si wàllu leer nañ waaw fii daal booy xool jigéen ñi daal ñooy lay meilleurs quoi. actuellement il y a huit salles de classe mais sept cours effective ñoo fi nekk parce que yenn classe dañ ko double flux donc donc problème boobu problème mu enseignant lañ fa am waaw booku difficulté la mais si problème mu vous dites encore salle de classe on a huit on a huit salles de classe yaa donc encore beneen projet yoo xam ñu ngi tax fii bu ñu effectif bi on a presque trois cent et quatre-vingt quelques élèves comme ça waaw waaw